wala laxoo waru ko moom jullit talabu ridwaanil wara muy sàkku ngërëmal nit bi suxti sil jalaali di mooy kay borom màgg di yàlla amul benn doom aadama boo xam ne war na la ngay sakku ngërëmal doom aadama ba di mooy yàlla mi borom bindéef yépp loolu warul kenn koy sàkku ngërëmal doom aadama bu dëppook ngërëmal yàlla baax na waaye bu dëppoowut ak ngërëmal yàlla baaxul kenn warul di sàkku nit gërëm la ba ngay moy sunu boroom baari il kay aji bind ja jam ñépp yàlla bind ñépp kon kenn warul sakku ngërëmal doom adama bay mooy yàlla moomu wallaahu yàlla mi aji màgg ji nguur wa rasuulu ak yonent ba sëriñ Tuubaa nee na ajdaru ñoo gën a yeyoo bi an yur di ci ees gërëm loo kon yéen jullit yépp na ngeen fexe yàlla di gërëm yonent bi di gërëm sil jalaali yàlla mooy borom mag gi moo bind asamaa suuf bind àddina ak li ci biir moom àddina moom àllaaxira bari il baraya mooy aji bind ja jaam ñépp yonent bi nag la fi yónni alayhi salaatu wasalaam kon yalla nga war a gërëm loo yonent bi nga war a gërëm loo sëriñ tubaa nag moo lay jàngal fi ngay teg sa tànk ba yàlla gërëm yonent bi gërëm sëriñ tubaa nee na wallaahu yàlla wa rasul ak yonent bi aj daru ñoo gën a yeyoo bi an yur ci ees gërëm loo leen jamiul muminina ci mbooleem ña gëm yàlla nag lay waxal ña gëm yonent bi lay waxal ña gëm alquran lay waxal fii zaman ci bépp jamono ku gëm yàlla gëm alquran gëm yonent bi na fexe yàlla di gërëm yonent bi di gërëm waxat ataa dikk na fi xawli ahmadal makiin ca waxi ku sant ka muy muhammad al kay ku ñu dëgëral sàlla yal na yàlla dolli teraanga ak jàmm wasalama te dolli musalam nga alayhi ca yonent ba amiin loolu it yàlla bu mu dakk di am di wàcc ca yonent ba kulla ayn ci wépp waxtu amiin yal na yàlla nangu mursiloo yàlla moo mi yónni yonent bi wa alihi te yal na ko eggale ca ñoñam bokkam ya ko toppante te gëm ko wasan bi ak saxaaba ya ñoduti bokkam waaye toppoon nañ ko tëggam ko wa kullu moominin ak jépp aji gëm yàlla yal na yàlla defal teraanga ak jàmm bihi ci darajaay rasulillahi min isbihi ak ca kuréelam ba amin yal na yàlla nangu hadisun ab hadis la yonent bi nettali ne laa taxata bul topp lil maxlooxi ñeel mbindéef yow julit bul topp mbindeef fii masiyatil xaalixi cik mooy aji bind ja di yàlla mbindeef daal toppal bu dee yéen a ngay ànd di sàkku ngërëmal yàlla waaye bu ko topp bu dee da di ànd di mooy yàlla ndax kat faafi na nga matal te sàmm almisaaxa kóllëre ga mu ne luy sàmmal kóllëre ga ba nga nekkee ca sa biiru yaay kenn la fa ku doon monte yax ku doon jubal loxo ya ku doon xar baaram ya ku ca doon defab xol ku ca monte kër ak res ak butiit ya ak gàddaam ya ak xëtër ya ku la saxal ay bëñ ku saxal karaw ku ca poose yaram wa ah, ku ca def la mu ca def ba yii di bankoo ko tàlli juddu jot nga war a jaar fu xat génn ku fa taxaw ba nga génn lépp ku ñuy wax yàlla la ka la binde noona ku la doon màggal ba nga toll ni nga toll kenn jàpp ca nga dem ba xam ba man ba tekki daal di bàyyi yàlla yaakaar keneen jàpp ne kooka mooy sa yàlla ngay bokkaale baaxut ab sëriñ dañ koy topp ndax la mu lay jàngal diine omat la ci diine ngeen ànd am gërëmal yàlla waaye moom sëriñ ba du yàlla te newul la may yàlla nag nan ànd jaamu yàlla la war a wax bindal la ci téere nii la sëriñ Tuubaa defal wan la fi ngay teg sa tànk ba yéen ñëpp ngeen am gërëmal yàlla loolu dib sëriñ de ab sëriñ day jàng day sànn mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yal na ko yàlla dolli teraanga ak jàmm wax naa diis wax ne bul topp ku ñu bind ci moy aji bind ja na nga sàmm kóllëre ga mooy li ma la joxoñ léegi yàlla jar naa yow foo xam ne kenn jaaru fa ak yow xultu wax naa man sëriñ Tuuba waa man talaba képp koo xam ne yaa ngay sàkku ridvaanal wara ngërëmal mbindeef bi suxti rabbi ci di mooy yàlla mi aji moom ja kii def loolu day fa xumrun ab dof la sookara buy gëmmentu